salaamaaleykum maa leen di nuyu di leen ziar euh, boobu ba léegi maa ngi xool ci TikTok bi YouTube Facebook yëpp maa ngi koy xool mais nag ñetti doomu aadama rek ñoo ci nekk mooy ñenn ñi dañ la bëgg di bokk ak yow naqar bi di la encouragé di xam ni tey dafa demoon pour joŋante ji euh, ñi si des ñaan ñi mooy kenn ki dañuy def pour kaf ak ree là ça se comprend. ñeneen ñi nag mooy ñi def pour saboter di tooñ mais nag ñu ne sportif la ñu li ñuy njëkk a def si ñun tàggat mooy tàggat sa xol ba doo mer ba nga accepté parce que képp koo gis mu def carrière rek gañe ay nit rek bés kontaan na famille ñooñu am naxar loolu foog ñu bàyyi ci xel te it ma yàgg wax ni euh, boxeur de haut niveau yëpp jël nañ kaw euh, Messi teg ne penalty raté Mbappé Tegnoko, devant tout le monde ratako, Pelé Maradona yep yep, un jour def nañ erreur pour c'est fini mais la loi du sport c'est le sport Le combat bii ñu avons fait dañu fekke le Pologne quelques sénégalais ont drapeau Sénégal tey ku xamoon ni boo demee tey ni la combat bi demee doo ci dem mais l'homme propose dispose nit day am yéene rek sabablu ne yàlla mooy dogal kon nañ ko jàppee noonu ñun nag suñu xool toj na si sport ba nga xamante ni dara lu ñuy naqari moo duñ ko gis doomu Sénégal ba demoon jongante bi te yaakaar naa ni bu demee am mbégte Sénégal yëpp waroon a génn feet bu demé am naqar tamit yaakaron na ni Sénégal yépp ñu wara war a bokk ak moom naqar mais nag àdduna moo demee noonu mooy balancé ñun nak mo gisee ñuy wax mental bu fort dëgg-dëgg ci moment bi la ma bu amé discipline de nek ci jafé jafé ci lañu xam ban mental nga ñun tay lañu gëna dëgër tay lañu ana gëna am gëm-gëm tay lañu gëna gëm suñu réew te dara moo tax ni tagg suñu tank ba yalla def suñu carrière diex si sport ñu bay war